ci ndigali suñu borom yi ndigali suñu borom yi nag yomb naa xam mooy lépp loo xam ne boo koy def danga ca am xel mu dal ndax xam nga fa nga ko teg ba ñëw ko la fa fekk ba ñëw ko ko nettali ji waaye mi ngi ñuy moytu it ñu moytu bu baax a baax a baax ku mu fekkoon mu teg ca tànkam mu teggi ko ci yi nga xam ne mooy safaanub loola safaanub loola it yomb naa xam mooy lépp loo xam ne bu ko nit kiy def bëggul ku ko fa fekk te bëggul ku ko nettali ci yàlla nañu ci yàlla musal yàlla nañu yàlla boole it ci ñi nga xam ne bu ñu masaan àggal ak jaamu yàlla dañu koy gunge ak ay jooy bu ñu demee ci alxuraan danañ ca fekk alladina yuutuuna maa aataw wa xulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun ñi nga xam ne buñ jaamoo yàlla ba noppi rawati lu mel ne weeru koor ay jooy lañu koy gungee soxna aisha radiyallahu anha lajna ko yonent bi ne ko ñooñu lu tax ñuy joy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dañoo xamne wéru weeru lëmm jóg na ci seen dund te du dellusiwaat te xamuñ taxaway yañ ca taxaw yàlla nangu nako wala nangu ko waaye suñu taxaway bi ñu taxaw ci koor gi akus néew sëriñ bi ñen yàlla nako yàlla nangu di dokku bok di saraxe di def yu bax yépp ba wéru koor bi yalla la ci yonent bi digle sëriñ bi neen yàlla ñu ko yàlla boole defal nee na it ginnaaw weeru koor jaamu yàlla day wéy moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne képp koo xam ne daa wari ba ca gannaaw suba sa mu umaat teg ca juróom benn fan bu matee dana mel ne ku woor ba àdduna tàmbale ba ba muy jeex ci ab yool sëñ bu mag bii bind na loo xam ne mi ngi ko bindoon ama alsasin mooy 1913 bam démé ndiarém ba ci déwén sa da tassé ak aw tangor tangoru jamono sëriñ bi bind khasida gi tënke ko fi shahri ramadan aama alsasin ma ngi ko tambalé ci faaza alladina hafadhu ala siyam chahrin bihi ugliqa baabun lil iyaam yàlla defal na nit ki la mu bëggoon lépp fii ak ëllëg ñu ne ko kan la mu ne ñi nga xam ne taxawe woon nañu weeru koor bi woor bëccëg yi taxaw guddi yi ba mu mat yàlla jéggal na leen seeni bakkaar sëriñ bi nee na yàlla nañ dugg ci waxe sëriñ boobee moom subhaanahu wa taala nawet bi nga xam ne moom la ñu dëgmal yàlla na ci suñu borom def xar baax mu gën ya ko daa jiitu te ñu ko daan nettali yàlla bu mu yées benn nawet bu ñu nettali ci lu baax ci baax la cay ñoree kus néew it mënut a dundal nit dundam gépp waaye yàlla na barkeel ba lu ca waay am mu muurloo ko te jaamoo ko yàlla tam rees ak jàmm di sant bu baax it bokkam yi nga xam ne yépp fekke nañu eh, ak moom eh, julli gi ci barab bii bàyyiwul kenn du mag du ndaw du dëkkandoo du kenn koo xam dafa jóge feneen ñëw fi mu ngi leen di sant di leen ñaanal seen tànki dem ak seen tànki dikk yépp suñu borom def ko ay tuyaaba sëriñ bi nag di dégg fan yi lool ñi nga xam ne dañu fay ñëwoon ci màggalu Kazu Rajab te yàlla dogal ñu am ay gàllankoor ba munuñoo dellu ci seen liggéeyukaay sëriñ bi nee na mi ngi leen di dénk ñu bàyyee seen bopp ak yàlla te xam ne yàlla dig na ab jaamam loo xam ne déwén la te du lekk ak naan kese kese loolu la ciy firnde mooy xissa bii nga xam ne jàngalekat yi tawxiid yi ak jàngalekat yi jikko yeb jàngale nañ ko ak nu ñuy bàyyee yàlla ak seen bop ci bis bu yàlla laajoon malakul mawti mi nga xamne moy jël ruuxi doom adamay ne ko dama bëgg nga nettali bis bo xamne dal yëgoon nga ca yaram way daw donte malaika yaramam du daw ci dara malaayikatun ghiladun shidad la yaasuuna allaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun di leen bàyyee ak yàlla di leen xamal ne kenn musta yaakaar suñ Tuubaa jaarale ko ci suñ fol yaakaaram di tas seen gàllankoor yooyee lu baree bare baree bari lay la yàlla mën naa def mu fanq lu baree bari den xëccal lu bari loo xam ne bu ngeen ñëwutoon yàlla mën naa def di ngeen ci jot foofa ko yàlla jaarale kon nañ gën muñ te gën a dëgër te ñaan yàlla rek te xam ne lu jot yomb di fàttali ñi nga xam ne ñëpp euh, doxale nañ kóllëre rek jaayante ak Sëñ gi ci ay yoxoom ne liggéey ba Sëñ Tuubaa Sëñ Muntaxaa di taxaw di taxaw te Sëñ Muntaxaa am lu mu ci sedd Sëñ Abo di ko fàttaloo di ko soññiloo at mu jot Sëñ Abo di ko soññee mu ngi leen di xamal ne liggéey bi day soog a day soog a tàmbali rek mu ngi leen di soññ kenn ku ci nekk taxawaay ba mu ca amoon daaw mu fës ko yéene yeesaar wala mu weesu su ko defee nag bokk ñaan jéego bu ci war dox jëm ci rek yàlla lépp jàppandi lu mu fa fekkoon mu néew yàlla na ko def lu bari lu mu fa fekkoon mu bari yàlla na ko barkeel di leen xamal ne e, lu jëm ci liggéeyub suñu borom moo kàmb guy tàkk ñoo bokkub àtte kàmb guy tàkk day gën loo ci gën di def day gën di soxla bërëx bërëx kon boog ginnaaw dañoo jëm ci bis boo xam ne dara dafa doy te ku dem di dellu nañ fexe ba la fa am njariñ rek nekkal ñu fa muy fret kenn ku nekk xam na ne kuy liggéey bitim réew wala feneen ci ab dëkk lu mu am jëfandikoo ko fa yónneewul dara fa mu jëm fa mu dëkk bis bu demee ñam fa fekk doon liggéey noog ñoom ñuy tedd su bëggee itam réunion fi woon dara itam du mën a sotti kon boog nañu gën a góorgóorlu te lu way am mu indi ko sëriñ bi neen bëgg na mu fa demee woon daaw ci sëñ ëboo euh, mu raw ren sëñ ëboo it bëgg nu mu fa demee woon daaw ren jii mu raw ndax kër gii di kër suñu fallu tànki ganam rek la am waaye amu tànk gannaaw